moom moom li mu liggéey ci suñu réew mi ak jàngat bi nga xam ne nekk na ak ndam pour bépp doomu Sénégal ci adduna bi mu taxawee ni mënoon na samp ndëndam waaye kàddoon la bëgg a waaye bëgg na jàmm wéy ci réew mi man day dellu ginnaaw bëggatul rekk candidat contrairement à li ñu sàmmoon ñun li ñu sàkk woon ñun loolu dugal na Sénégal ci histoire te nag suñu démocratie war nañ ko ci tëru de suñu démocratie moo ñu may Senghor Senghor ñëw ba ah, mi commencé na ko dépassé bàyyi na ci kàddu bu dee Abdou Diouf ndax moom Senghor bu muy nekk président jamono bu nekk ko seetloo réew yu bëri ay militaire jiite ko ñun nag yàlla sàmm na ndax amoon démocratie bu tàmbali ñu ngi ci dàpp Diouf ñoom xam ni dafa war a liggéey mu liggéey nag lu am benn administration bu am doole ñu ubbi démocratie démocratie boobu mooy indi Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade falu gëm loolu lépp lu am ci àdduna war nañ ko mën a am jiitu suñu réew mu décomplexé na bu paree Macky ñëw indi nag li ñuy woowee benn vision bu englobante bu nga xam ne c'est vrai lépp lu war a séntu ci war nañ ko mën a am fii waaye nag bu ñu Sénégal bi ci biir le Sénégal de l'intérieur bu ñu fàtte Sénégal bi néew doole le Sénégal social kooku na moo ne moom mission am ci boppu Sénégal dina jeex bu soobee yàlla ci jongante yi ñu jëm moo waral ab coalition jóg mu nekk ay parti ay mouvement ay kilifa ay kuréel yu bëri ñu taxaw laaj ndax ma nekk seen mbër dama leen soba yàlla ñu dem Sénégal bu bees seen bëgg a tabax man pare naa pour nekk seen mbër soba yàlla benn président la ñuy fal ci joŋante yi ñu waaye waaye période bi ñu toll nii dafa jar ñu waxtaanee suñu réew kon nag képp ku bëgg samp dëndëm na ñëw samp dëndëm wax nag lan mooy yéeneem ci suñu réew bu boobaa sénégalais yi àtte ndax ñoom rek ñoo war a leen àtte maa ngi leen di sant bu baax leen gërëm musibaal musibaal Sénégal Monsieur le Sénégal. Monsieur le Senegal. Você é Sénégal. reetaan la ko moƴƴi ɗum yetta sénégal ko ñaƴi